nabi xam ni pexe amul mu woo ñaar kenn ki fatlu la tudd kenn ki xusam Abbas a leen jur Abbas mi jur ñaari xale yii Abdul Muttalib ba ko jur Abdul Muttalib moo jur Xaaris Zubayru Xijil Diraar Muqawim Abbas Abu Lahab Hamza Abu Talib Abdullahi muy fukki doom yu góor Abbas mii ak papa yonent ñoo bokk benn baay waaye bokkuñu yaay. ñaari xale yi dugg ci pantere bi jàppoo yonent Muhammad mu jóg mu jël benn loxo bi lëng ko fadduma benn bi mu lëng ko xusam booba tànk ya dee na mu ngay jàng kalla ida balagati man raaq wa danna annahu alfiraaq làmmiñu sang bi dem na waltafati saaqu bisaaqi ila rabbika yawma idin almasaaq fala saddaqa wala salla def leen ndànk xale yi def ndànk kalla ida balagati taraqi وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى agsi ci mixraab bi bi mu naan awlaa laka fa awlaa lay agsi ci mixraab bi xale yi jàpp ko mu toog Abdullah ibn Mas'ud nee mu xool fa nazara bi naa mu bëtam yu rafet yooy ñu ngi ko jàppoo fa dumi at ay di def moo ko jëkk a def kere boobu dafa jooy moom sang bi ba bi tooy xepp muy jël gi di fomm ba yàgg muy jooy ca kaw Abdullah ibn Mas'ud nee na foofu nag dafa mel ni yàlla da koo delluwaat doole doole kàddoom mu xool ñu ni wa xaana almunqalibu ila allah wa ila sidrati almuntaha وإلى جنة المأوى يغسلني رجال آل بيتي ويكفنونني ويكفنونني في ثيابي هذه إن شاءوا أو في حلة اليمين loolu tax moom moo taxoon ma ko firi fa ida gasaltumuni wa kafantum ثم اخرجوا عني ساعة فأول من يصلي علي حبيبي الله عز وجل الله أكبر ثم جبرائيل ثم إسرافيل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ميكائيل ثم ملك الموت مع جنودهم ثم ادخلوا علي فوجا فوجا فصلوا علي يا جماعة المسلمين إن الجمادات كادت مينه صادعة فكيف من آمنوا بالله ربهم مبكي مبكي جلتي نبي قد دنا الفراق وحان المنقلب إلى الله اليمانية فإذا غسلتموني وكفنتموني ضعوني على صرير لحدي ثم اخرجوا عني ساعة فأول من يصلي علي حبيبي الله عز وجل حبيبي الله عز وجل حبيبي الله عز وجل ثم إسرافيل ثم جبرائيل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين nabi ne jaay rango yaa ngi tuuru mu mel ni dañu ko delloo kartanam altine jooju mu jàkkaarloog mbooloo mi naan sama heure dem jege jot naa convocation mbokk yi dama war a tàggoog yéen damay mbokk yi sama borom woo na ma li ma doon liggéey mission bi mat na damay dem rendre compte sama wa ila sidratil muntaha àjjana ay waay sang bi àjjana la bu demul aljana kan mooy dem aljana arrahmanu allama alquran خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للناس النخلة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار sang baa ngay dem fa bi ay aadaa rabbikuma tukadibaan رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان نبني أجنا جبت mais damay dem de waaye leen li ma leen di digal sama mbokki bopp nañu ma sànq laa ilaha illa allah الله